liggéey ci réew mi loo xam ni moo tax nit ñi fi mu toll nii nit ñi fi mu toll nii dafa mel ni dëj moo am Sénégal dafa mel ni dëj national moo fi am man nag Macky Sall suma xarit la sama président la mais dëgg dëgg neex yàlla man maam góor kontaanu ma de am naa lu ma métti parce que tey ji kii buñ ko dee remplace remplacer dañu war a bàyyi ba coupe du monde bi jeex ñu remplacer ko parce que Macky Sall lu neex sénégalais yi lay def mais tey bu ñu xoolee la jeunesse sénégalaise temps yi ni ñu mere ñu dem bay créer ay jokkoo ak président jokkoog lii ñuy waxtaan nga jël ki nga xam ne tey moom la jeunesse bi gën a bëgg à deux mois ci coupe du monde nga wàcce ko donc du neex benn sénégalais xam nga te ñëpp xam nañ ni Matar Ba Baye Fallou président la du yàgg yàgg ba mu wax lu ñaaw du yàgg yàgg ba mu def ko parce que man sama xarit la chaque jour ñooy nekk guddi bëccëg matin soir donc xam naa nit ki ram la donc nag peut-être président dencal na ko foo xam ni moo gën parce que tamit calcul yi dafa bari tey président coalition la àndal politiquer poste dëkk bi mais comme coalition la àndal yaakaar naa ne Matar Ba nekk na nit koo xam ne soo ko wàccee du saaga du xaste du jëngu comme am na fi ñuy wàccee ñuy xuloo ko xeex mais yooyu doo ko mës a dégg ci Matar parce que gor la gor piir la te moom dafa am loo xam ne man ak moom dañoo wét waxtaane ko mu ma maam góor mu ne ko naam mu ne ma man président Macky Sall ba may opéré di ma def maire Fatick boobu nekk ma premier adjoint au maire mu détecté ma jël ma def ma meeru Fatick defak man passation de service may liggéey ci Fatick mu xool ma mu dem ba mu neex ko mu xool ni sport sénégalaise am na problème mu jël ma dénk ma sport bi yàlla jàppale ma ma am fa réussite bi mu fa am réussite nii mënu ma tey kon su demee ba teggi ma ku la ni kaay gunge ma ba gunge ma fi mu la yemloo rek ngay yem donc nag peut-être président dencal na ko feneen foo xam ni mën na fa liggéeyal Sénégal mais Matar Ba moom du yàgg yàgg ba kenn dégg mu wax dara lu ñaaw mais en tout cas man de ma part personnelle man maam góor am naa lu ma métti parce que tey jii lii mën na déstabiliser équipe bi mën na déstabiliser sportif euh, sport sporteurs yi ak yëpp. léegi nag li ñu mën a def mooy bu ndox tuuroo li fi des mooy an baax ñaanal ba Diattara mi nga xam ne moo ñëw di ko remplacer mu roy ci Matar ubbi téléphone am ubbi boppam jege sportif yi waxtaan ak ñoom pour mën a réussir mission su ko deful day échec. ñu bëri ay kàddu Euh, Matar Ba changé bi ñu ko changé am na anguille sur am tamit ay président fédération yeneen yeneen sport yi Sénégal kontaan si liñ changé parce que nee nañ ñoom gisuñu seen bopp si magistère u mais yow yàlla mi sàkk jaam ñi sax yàlla mi yow yàlla am nañu gisul seen bopp ci yàlla li mu leen sàkk sax <laughs> yàlla il faut mu am ñu nekk ci kaw am ñu nekk ci suuf am ñu nekk ci digg bi unanimité àddina kenn amu ko mais Matar Ba moom bu fekkee ni sa fédération yi cinquante six la cinquante cinq yi moom réussir na benn rek kenn rek ngay gis muy kaas muy tànjaan la ko métti nag loolu problème am la xama boo meree dangay ngay ñaaw ma Matar Ba ñi ko bañ sax dañoo ñaaw parce que dafa liggéey réew mi soo ko bañee yaay am problème Matar Ba tey amul benn problème huit ans la def mooy le ministre bi nga xam ni moo gën a yàgg ci ministère des sports ñëpp xam ne nit ku baax la soo ko bañee lu mu koy wàññi Matar Ba tey opposition pouvoir ñi gën a bañ Macky Sall Sénégal tey lii ñu def Matar daf leen métti dañu génn def ci ay tweet donc ça veut dire que ni yow boo taxawee nekk yor sa benn fédération sa intérêt personnel pour bëgg yow gars yi tànn la par force da nga war a nekk président fédération Matar ba dafa am fula nag fi nga koy gis noonu ni mu baaxee doonu la amee fula boo bëggee nekk fi éternellement bëgg a nekk président fédération tous les jours te gisul ni yow sa liggéey bi nga war a liggéey liggéeyoo ko bu ko neexee mu wàcc la donc nag loolu boo si meree kooku sa business la comprendre la mais tey jii ci man bokk benn nit rek laa gis muy wax boobu léegi yéene naa ko muy Tandian léegi Tandian fu mu toj mu solo ni waaye deful benn résultat deful dara man dafa am bidéew de mais nit bidéew dafa am dafa am ñoo xam ne bu ñu taxawee rek da nga xam ne ñii nitu bidéew lañ xam nga fii fukki nit bu ñu jàak bu ñu toogee dafay am koo xam ne chaque jour même bu caméra yi di jël moom la jël loolu mooy bidéew Matar Ba am na bidéew am na wërsëg tabaarkalla yàlla bu ko cat jiitu moom nag liñ koy ñaanal mooy Yankhoba Diattara mi ko remplacé yàlla may ko xol may ko xel bi Matar Ba amoon ba mission bi nga xam ne moom la président dénk ko mu réussir ko mais dama ni waxuma du ko réussir de mais du yomb de te nag buñ ne à deux mois de la coupe du monde nga wàcc ministre boo xam ni Sénégal ñëpp ko bëgg tey imaginel rek tey équipe bi dem football mu am ñu ko yàlla mu am tolof tolof booy ci mbedd mi la ñuy génn c'est pas bien loolu du yoon li ñu waroon def mooy bàyyi ba mondial bi passé ñu door ko dindi loolu laa am boobu laa te yaakaar naa ne sama gis-gis boobu mën naa ko bokk ak Sénégal yu bëri loolu mooy yoon dañu waroon bàyyi ba coupe du monde bi passé ñu ñu door ko dindi. no moom Matar jour bi ñu ko wàccee ñu ngi reer michu la reere maa moom ñoo ko reerandoo gars yi dañoo nekkoon foofu sax am ñoo xam ne sax dañoo xawoon kii mais moom moo doon moo moo moo njëkk a raxasu ni gars yi kaa la ñu reer Matar Ba man waxuma ko parce que dama koy jay wala damay def dara man ku ma xam-xam ne du nekkuma fii pour di neexal kenn sama xarit la dëgg la mais man sax bu ma bu ma ñemewoon tuuti mën naa ko jiñ wàlliw nit ku baax la affaire bi de ça ça lui fait ni chaud ni froid moom président la gëm di ko jàppale président moo ko tànnoon jiital ko wàcce na ko mu ngi toog di déglu président toujours topp ci ginnaawam di ko jàppale président grand frère am la xam la la wax man dañu le président c'est mon grand frère man Fatick laa nekkoon nekkuma premier encore une fois adjoint au maire mu war a dem nekk président woo ma ma ñëw mu dénk ma maire def ak man passation de donc tey bu demee tànn ma dem ba ci yàgg mu tànn ma sport ma dem am fa réussite bi ma fa am donc bu xëyee suba del teggi ma su ma meree dama dama du ma ñàkk ñànki voilà donc loolu rek la nañ ko ñaanal rek yàlla may ko ndam may ko xolu muñ et ki nga xam ne tamit moom la ñu teg ñu ñaanal ko mu am réussite parce que bu réussir Sénégal yëpp réussir merci